ndax mouvement bi nga xam ne moom la ñu créé en le en avril 2019 dañu waxtaan seen biir ne dañuy porter seen camarade François Babacar Touré mu nekk vraiment à la tête de la commune de Rufisque Nord ma ne nangul naa leen loolu dale ko tey te dinaa ci liggéey ba keroog ñu si am ndam si kàttanu yàlla loolu nañu nekk waaye di si àndax ay doomu aadama ay personnalité macha allah le doyen Karim Mbengue nga xam ne mu njëkk jël parole eggali ay rencontre yu mu doon def ànd Cheikh Arouna Sarr ak mouvement am ñu si liggéey bu nekk une initiative waaye nag ñu am si ay ñoo xam ne ne weccoo nañu ay kàddu joxante cër ku nekk am sa morom yaakaar ben di Amadou Samba nga xamné ne ne kenn nattablewul xam-xamam ci walum développement durable ndax xam-xam ci lo mbir momu di liggéey ak ay commune am yéne ci Tëngéej ñu amit le président Seydou Diouf qui est issu vraiment pour ne pas pas dire les entrailles de Mbéjac Diop mais qui est issu des flancs de Mbéjac Diop lan moo tax ñu leen fii bàyyi di fal ñeneen saa su nekk loolu nañu nekk